mbokki Leewtoo ñu ngi leen di nuyuwaat baax a baax fi ñu leen daan nuyoo tey ñu ñëw ci open press fii ci parcelle Bawol 2 wala jàkkaarloo ki nga xam ne moom mooy Zal Bambey combat bi nga xam ne ki ne moo ko organisé mooy Idaly Gning muy Gning production ñu ngi tey fii ci parcelle unité 9 ma ànd ak Moussa Fall ci caméra bi waaye du nuyu Momo Mané ak mboolem équipe Leewtoo ñuy suivre ñëpp mbokk yi dinañ ñëw fii indil leen li nga xam ne yaa ci gis Moussa gaa yaa ngi nii coach baa ngi ci digg bi nga la ñuy def ñu ngi ca mouvement ya ñoom blindé yéen a ngi ci gis nga mbokki Leewtoo ki nu woon ginnaaw nii mooy blindé ñu xam ko ci lutte simple bi lool Gora Sock moo ne nii coach bi na ci biir lii musa Fall lii mooy baaxu làmb entraîneur bi na ne ci biir li leen woon la ñuy def Moussa nga xool entraîneur bi xoolal mu ngay wax ak moom mu ngi koy won ne nii ngay def gis nga ñoom ñëpp ñoom ñëpp jël nañu relève bi Gora Sock am na ku mu jël di def ak moom mbëri yëpp kenn ku ne dañoo jëlante deux deux cey lamb gis nga bawo la ngi noonu tàccu na xoolal coach bi nee na ko defaral poids yi coach bi ñëpp a ngi koy topp ca la muy def xanaa dañuy joxe exercice ca la nga xam ne ñoom jàng nañ ko ñëw di ko war fas yéene tari seen diggante ak ki nga xam ne moom mooy seen adversaire bi. kon mbokki Leewtoo mu ngi noonu Bawol 2 war a jàkkaarloo ak Zal

dinaa dinaa la tam fa doon laare laare yaay laare laare yaay laare laare laare Abdoulaye Ndiaye mbokk mi yaay ah. mbokk Leewtoo ñu ngi ak euh, entraîneur Bawol 2 ah. Babacar ñu ngi lay nuyu ñoo lay fay sonto waaw ah, mais Babacar est-ce que xam nga li lay xaar non xam nañu baax la ñuy xaar ndax suñu première journée dañoo dugg ñàkk da dañuy ñaan yàlla booy bool ëndi ñu victoire waaw ndax lamb lañ jëm nag xamuñu nag kuy gagné mais dañuy sabablu suñu borom di ko ñaan mu suturaal ñu ba ñu am ndam li mu ndax xam naa ko xam naa qualité bi nekk ci moom ki muy xam naa qualité bi nekk ci moom ndax lamb du ma ci gan yàgg naa si waaw te nii nag dimanche incha allah damay waa parcelle 1 ba ñëpp ñu ñaanal booy ren ñu soog defar ko jëlaat fee bu soobee yàlla loolu moo ñu tax a waa mais Gora nuyu nañ la. Eh, maa la fay. waa mais Gora nga am doomu ndey mu war a bëri. ak Salma. waaw xam nga combat la comme combat ko ñaanal ndam rek di wax sama nijaay la waaw sama teral la quoi di ko ñaanal ndam waaw liggéey na teg na coono yu métti yàlla ko yàlla fay coono waaw. open mu gën a fas jom rek xam na xale la ay morom topp nañ ko ay xale ay dëkkanoom topp nañ ko kon mu gën a am jom rek incha allah yàlla may ko ndam. yow ana foo jëm. waaw maa ngi man moom ku ma xam ne maa ngi ci kawam fan yii naa ko waa incha allah yàlla may talak fekk rek incha allah rabbi waaw. ndeysaan xoolal xale ma xale la ñuy def Moussa Fall. laa ilaha illallah. ndeysaan ah. xale yi ànd nañoo confiance xalal parcelles ñu fàtte ne Idaly Gningue moo ko organisé diggante Boy Bawol numéro 2 ak Zal Bambey ndeysaan xale yaa ngi noonu xoolal géwél gi la muy wax neex yaa ko dàq bëre duma ko yaa ko dàq bëree du ma ko eey booy bawal yaa ko dàq bëree du ma ko booy bawal yaa ko dàq bëree bul ko may déggal loolu Moussa Fall nee na ko yaa ko dàq bëree du ma ko tey jii ñi ngi ñëw fii si open press nga def open press bu toj macha allah tey parcelle ñëpp génn say supporter génn nga am combat yoog Zal Bawol tey jii Zal Bambey du moins tey jii gis nañu macha allah yaa ngi si forme tey looy wax say supporter say ànd jàmm say dëkkandoo ak jour bi incha allah. waa avant may wax dara damay sant yàlla rek jur ci yonante bi di gërëm sama ñaari waajur di gërëm waa parcelle ak waa Cambérène ak waa Mbowar yëpp ak waa Bawol ak waa parcelle ñëpp maa di kontaan ci mbiru yëpp gis seen teewaay ku ñëw ku ñëw la ma ñi mel na ñëpp kontaan naa si ñëpp di ñaan yàlla suur ma yàlla suturaal ma si ñi ma bëgg may ma seen kanam ba mën a siggi waaw combat bi ngay ban promoteur moo ko tëgg combat ñi ngi moo ko tëgg waa seen amateur date bi kañ la le 15 décembre say supporter ak loo leen yóbbul incha allah supporter yi moom xam na ni ñu defe bañ def li ñu war a def ñu wàcc suñu loxo dem jël ko daan ko ñibbi indi fii Parcelles Cambérène. est ce que xam nga sa adversaire bi ngay bëree. bi ngay bëree est ce xam nga ko. waa xam naa ko ci làmb xam naa ko ci làmb baax a baax a baax a baax yaakaar naa ne tey tey moom lu fay am maa koy indi maay fecc maay bëre maay xeex maay daan su neexee yàlla liggéey naa ko ba pare amul leneen. may tey loo yebee waa parcelle parce ñi sa ginnaaw gis nañ fi góor a gis nañ fi ki xamante mooy Blindé ak yeneen mbër yëpp tey lan ngay yóbbu stade boobaa parce que sa waay Zal mi ngi lay xaar de ngay gis waa parcelle gépp nga xam ne mbooloo mooy doole pour man waa ñii ma bëgg nii billaahi walaa duñ ma gën a gore dama leen di fay ba wis leen waaw mais tey xeex bi nga xamante ni est-ce indi nga xeex ndax sa waay day xeex day bëri bëri naa moom lu ma di wax def ko ci loolu

Diop dama loolu ma dégg yow. waaw kooku Mbaye. booy boobal. yaa ko dàq bëri du ma ko. jërëjëf waaw waaw. waaw waaw. yaa ko dàq bëri du ma ko. Bawol dégg Zal Bambey xel yëpp dem ci Bawol yéen ñaar ñëpp tur yi. ndax loolu amul lu muy def ci amateur yi. amul benn defar parce que boo joonu laa mujj a bëri li kii di Bawol la nekk. yaakaar man fii laa dëkk fii laa xam xanaa turu booy bool numéro 2 bi lu ñu fawee la rek ba mu dem quoi mais fii laa dëkk fii laa xam doomi Mbawar laa doomi Mbawar Mbawar la lu ma am yóbbu jël jël ko mu jaar Parcelles ak Cambérène ma jàllale Mbawar billaahi waaw mais ce que xam nga ne adversaire bi ngay bëreel dafa coriace waaw loolu dëgg la amaana ku seetaan combat booy bool 2 seetaan Sall Bambay di nga wax leen loolu parce que xam naa ne xàmme ma mais xam nañ bu baax fan koy rayantee cent vingt kilos yi kon quatre-vingt-cinq am na ñi nga jot a bëreel ba pare am foo jaar ak ñoom adversaire bi xaw a taayam xaw a wàcc par rapport ak sa bos muy trompeur ndax yaa ngi sóoraale loolu bañ a yóbbu euphorie bi déedéet maa ngi sóoraale lépp pare nañ lépp lépp lépp parce que gëm naa ni boo xool mook albarka kay rek moom mujj daan parce que ñoo tolloo taxawaay loolu jaaxalu ma de bu dee ndaamaa day gën a gaaw de waaw mais day gaaw wala day yéex. déggoo ma de xanaa ma dàqaji ko man mënu ma koo jot mais su taxawee rek bu àll sublee ba ma tàllal ko loxo damay dox ñëw ni ma doon doxee ñëw bu soobee yàlla. mais bu dawee nag. bu dawee ma dàq ko génne ko isaat bi. ci jafe-jafe ko dafa ko daal yi mu toog ko. Ah, waaw waaw waaw. Ah, ma leer. loolu dafa wóor. ana ñu lan nga mën a tàggatoor ñi nga xam ne dañoo taxaw ci kaw terrasse yi. ñii indi ay charrette ñeneen ñoom daam seen mënuma tudd sax tur yëpp ñoom Zarko numéro 2. ñi nga xam ne ñoom ñooy blindé sa coach bi Tafa Mbër mënumaa lim ñëpp ñooñu yëpp wàll wàll si la ñoom mu mel ni tey mooy combat bi tey open press la ana lan nga leen mën a yóbbeente ba ñu mën koo waajale bés ba. dama leen wax ñu gën a waaj rek parce que man nii laa mel ak ñoom ku mu soññee open press bu blindé wala bu daam seen Tafa Mbër góor a danga may gis ci kanam parce que man dama leen demal ñoom tamit dañ may ñëwal te jàmm rek moo ne jàmm ci la lépp xaj li lépp jàmm la damay ñaan yàlla suturaal ma am ndam mbëri dëkk parcelle kuy bëree nga daan Tapha Mbeur am na combat yàlla may ko ndam Valdo am na combat ak Pa Ida Junni ñoom ñëpp ñu daan xam nga ñëpp nañ daan incha allahu rabi te gëm nañ dañuy daan incha allah ndax ñu ngi liggéey mais supporters yi dem stade parce que léegi dafa jar ñuy wax ak ñoom uh-huh. lan nga leen di message ngay lancé si booy parce que uh-huh. léegi lamb fool la agréé uh-huh. xam nga léegi lay wax sa supporters yi xam nga ñoo dem stade incha allah booba waaw samay supporters moom ma leen wax ñuy ànd ak dal rek teel a ñëw rafet sangu ñëw añ yéeg ci kaar yi dem Issa noobalee mu bëree daan ñu ñibbi ñu àndaan daan ñëw ci koñ bi foo woon mu neex ñu ñu meew doo ko tëdd. bu nettali fii lañ ñëwoon ci parcelle Bawol 2 daan def open press am ñu ngi nuyu képp ku ñuy suivre ci Leewtoo TV leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen waaye dama ne parcelle 1 ba 26 wàcc na tey ba zéro encore une fois jërë ngeen jëf ba beneen jamono incha allah jokkanjal